allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaanaa bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi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 ñu ñaan ko buur bi tabaraka wa taala moom mi yore jàmm yan nañu yàlla may jàmm moom mi ñu may fanaanu jàmm ba ñu génn ci semaine bu weesu noo ngi nii di waaj a tàmbali beneen semaine bu bees ñu ñaan ko mu bàyyi ñu fii ba ñu fekke walla ba ñu tal kon ñu di ko tàllal loxo moom buur bi tabaraka wa mu may ñu ñu fekkee semaine bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim ñu àggale ko ci si alhamdulillahi rabbil alamin waaye ba léegi mu may ñu ñu génn ci alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi xam ngeen ne xéewalu yàlla ci jaam bi bari nañu lool waaye duñu deñ di leen baaxee di leen yéggee leen na ci xéewal yooyu te mooy xéwalu nelaw ba ñu buuru yàlla wërsëgal waxtu su néew si ginnaaw mu doon xéwal woo xamante ne ku dut moom yàlla tabaraka wa amul kenn ku ñu ko war a mën a xéwalal waaye ba léegi bu duutoon coobareem ak ñewent ak yërmande ba mu am jëmale ko ci doomu aadama bi amul kenn ku fi nekk ku ñu war a mën a xéwalal xéwal ba tax na xéewal yooyu nekk fa moom te mu jagleel ko mbindaafoon ba ñu naan bani aadam muy doomu aadama di nit yow la yàlla teral ci mboolem la bind waaye yow la yàlla jox maqaama bu kawe ci mboolem la mu bind ba tax na ngir nga war a mën a xam sa toogaay ci pénc wi ba tax na ngir nga mën a xam sa nekkin ci pénc wi moo tax mu daldi la yónni yonent bi nga xamante ne lay sababu ba tax yàlla yónnee la ko mooy li yuxrija na min adulumaati ila nuur ngir mu jëlee nit ñi ci lëndemaayu bokkaale yàlla yóbbu leen ci leeraayu wéttali yàlla ngir ñu jëlee nit ñi ci lëndemaayu jaamu leneen ludut yàlla yóbbu leen ci leeraayu jaamu yàlla moom kepp rek kot dong ba tax na yonent boobu yàlla yónn ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima ci njàngaleem yu mataley ci njàngaleem yu nosey ci njàngaleem yu mucc ayib yamu fa bay njàngaleem yu mu bàyyi ci askan bi mu ko xeet bi bokk na ci mu ngi nii di la wax yow jullit bi yow mi bokk ci daairatul iman wala yow mu bokk ci kuréelu way gëm yàlla ñi yonent bi nee na bula la yàlla wërsëgalee xéewal ju toll nii lam la wërsëgal sànq ci ginnaaw te mooy xéewalu nelaw nee na boo ci noppee la nga war a njëkk a def mooy nga sant yàlla ci anam bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a wax si nii moo ni xéewal woowu buur yàlla am na ñum ko xañ waaye mu baaxee la ko yow en tant doomu aadama ba tax na mu ne la saa yoo yeewoo ci nelaw boobu nga doon jëfandikoo ci waxtu si néew ci ginnaaw te mboolem ni yu ci gën a ëpp ñu nekkee ko ñu di ko def kon buur yàlla nee na ku ci noppi la nga war a def mooy nga sant yàlla yonent bi jàngale anam ya ñu war a sante yàlla ci xiwal bu ñu yàlla defal moone def ñu ne ku ci jëfandikoo xiwal binimel ni mel la nga war a wax mooy alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mooy mboolem xeetu cante yu kawe yi ñeel nañu yàlla mboolem xeetu cante yu matale yi ñeel nañu yàlla ndax yàlla moo fi nekk di buur boo xamante ne axyaana moo mu dundal baadama amaatana gannaaw bu mu namee sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw bi ma doon def sànq ci ginnaaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla tabaraka wa taala ñuy dellu jàlla wa ala mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ak yéen ci buntu ngénneelu sàkku xam-xam waaye buntu ngénneelu xam-xam ci boppam pàcc la boo xamante ne yaatu na lool waaye ñu compal leen ci tuuti mu doon waxtaan ya weesu woon tey bi iznillahi subhaanahu wa taala ñu war suuf ci buntu ya weesu beneen buntu bu bees buntu bu bees bi bu ñu demee xool ci suratul luqmaan dinañu fa fekk buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñuy wax njëriñu xam-xam ak dayo xam-xam ak xam-xam ci boppam na mu nekk fa moom yàlla waaye mu féetale boppam xam-xam boo xamante ne kenn ku dut moom yàlla xamoo ko boo fi nekk di ko géem a xam dangay ngay wone sa télé ak sa manke ak sa doyadi ndegem la fa yàlla nañ ko bàyyeek moom lam ñu jox nañ leen jël doyloo ko waaye saa yu ñu génnee ci kaadaru lam ñu jox ñu war a dem dugg kaadare lamu moom dañuy wone suñu matadi ak suñuy manquement te loolu mun nañoo yóbbu ci weddi lenn ci weddi yi nga xamante ne bu ko doomu aadama bi weddee day doon ki weddi yàlla day doon ci melokaanu màndargay yéefar ba tax na yàlla buur la bi nga xamante ne bokk na ci màndu teem ngir doomu aadama boobu mu sàkkal palaas bu kawe dayo bu kawe maqaama yu mu sàkkalul keneen ci mbindaafoon moo ne moo tax mu yónnee la yënant mu jox ko téere mu doon catalogue ba nga xamante ne moo la war a tegtal ana fan nga war a jaar ba mucc ana nga war a jaar ba xàmme ana nga war a jaar bi xam kon nañu leen bokk déglu catalogue bu mag ba mu jox yonent bi constitution bu mag ba mu jox suñu yonent bi sallallahu alayhi wa ngir mu jàngal ñu ko ñu xam la yàlla moom ci suñu jëmmiy ak lum ñu bàyyil suñu bopp ngir ñu moom ko doonte moomeel bi able la ak lan la loo xamante ne nit ñi ñoo moom loole si ñun bu ñu demee xool ci téere alquran ba nga xamante ne mooy constitution wu àddina donte ñu bari si nit ñi duñ ko doxal jële nañ leneen feneen ñu ne yi yaay loolu moo leen doy ba tax na moom lañuy ñuy tëral ala kulli xaalin kon ñun mi yàlla nattoo ñu di si yëngatu ak ñu mel nii kon ñun mënuñoo bañ a waxtaan ak nit ñi lu concerné lépp loo xamante ni ci alquran la génne te mu doon téere bu yàlla jox suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bokk na ci aaya bañ leen jukkil ci suratul luqmaan buur yàlla tabaraka wa moo ngi nii di wax yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko mafatihul xayba xamsa laa yaalamuhunna illa allah caabi magasin wu kumpa caabi magasin wu ba nga xamante ni muy ubbi lu faddu caabi yooyu yàlla nee na moom dong moo ko yore yonent bi melale bu dee magasin yooyu juróom lañu caabi ya koy tijji yàlla dongo ko yore subhaanahu wa taala caabi magasin yi yàlla joxu ko waliw joxu ko yenanti joxu ko jinne joxu ko malaaka yàlla bawur bi tabaraka wa moo ko yoreel boppam subhaanahu wa taala moo tax mu ne mafatihul xayb caabi bay ubbi kumpa xamsa nee juróom lañu laa yaalamuhunna illa allah amul kenn ku ko xam ku dut yàlla gis nga yàlla dong fi nekk di ko xam ndax caabi yay ubbi kumpa moo ko yore subhaanahu wa taala moo tax mu ne amul kenn ku ko yore ku dut allah di yàlla moo ne aaya bi mu ngi tàmbalee nee na yow doomu aadama bi na xam ne inna allaha naka yàlla indahu fa moom la nekk ilmu saa waxtu ba bés pénc da taxaw waaye bu ñu xëccee maanaa bi ñu nar ko xëcc ba mu jege si dinañ ne inna allaha naka yàlla indahu fa moom la nekk ilmu saa waxtu su néew ci ginnaaw tuuti gannaaw bu ñu génnee ci waxtu bu ñu nekk ni bu ñu waree jëm ci beneen waxtu ba toftal waxtu ba ñu nekk ni lafay xew nu muy xewee naka lay xewee yàllaa xam loolee kon yàlla moo fi nekk di xam après heure ñu nekk ni heure bu ci toftal yàllaa xam waaye xam-xamu bés pénc xam amul kenn ku ko xam loolu benn kumpa ba nekk fa yàlla ci xameelam la nekk moom buur bi tabaraka mu teg si ne wa yunazzilul gaysa buur yàlla mooy kiy wàccee ndox bay nandal suuf si muy wàccee ndox bay nandal gàncax yi mooy buur bay wàcce ndox bay nandal xeer yi ak leneen yi nga xamante ne bay may mënees nañ kaa naan ci àll bi moo ne bu dee service boobu yow doomu aadama lañ ko sant ngir nga nandal xeer yeeg doj yeeg gàncax yeeg meññeef yeeg fa bay may di naan kañ ngay noppaliku noo koy defee est-ce que dinga mën sax kon loolu mbiru yàlla la na yunazzilul ghaysa yàlla mooy buur bay wàccee ndox bay nandal la ko soob mu bokk ci lay ñoral meññeef jay wara a meññ bu dee daa jox xam-xam bi scientifique yeeg savant yeeg buxaaba yeeg intellectuel yi kon duñ si mën dara lay yàqu mooy gëna bari lay defaru parce seen yitte ak seen man-man ak seen kattan mënuta peeg la yàlla ne may kiy wàcce ndox ndox bi muy nandal la ma soob lay ñoral meññeef yeeg la gaay di béy ak la njanaaw yi di lekk ak la bayi may di lekk ndegem ndox bay wàcc ci kaw mooy la koy ñoral mooy la koy meññloo xam-xam boobu ca yàlla la nekk buur bi subhaanahu wa taala léeg-léeg mu daldi may doomu aadama as bay joge ko ci xam-xam bay ñoŋal dund doomu aadama bi muy war a mën a estimate wala muy war a mën a joxe ay milimètres ya taw ak bu dee dina taw wala du taw yooyu yëpp xam-xam la bu yàlla wàccee yenkeewal ko doomu aadama bi ngir dundam mën na ñoŋ ngir système de vie ba muy dund mu war a mën a tegu ci yoon imagine leen bu fekkente ne gaay yooyu nekkuñu fi di xayma ba xam dina taw wala du taw buy taw ñaata milimètre lay taw bu dee gaay yooyu nekkuñu fi ah kon yàqute dina bari lool waaye ndegem yàlla yënkeewal na leen xam-xam boo xamante ne moom la wax ci suratul alaq allama al insaana maa lam yaalam yàlla moo fi nekk di xamal doomu aadama la mu xamul te loolooy dëgg ndax bi nga doon gani si àddina xamuloo moom la la wax allahu alladi axrajakum min butuuni ummahatikum laa taalamuuna shay'an buur yàlla mooy buur bi nga xamante ne moo leen génnee ci seen biiru yaay te xamuleen dara waaw mu am lum leen composé wa jaala lakum alsamaa wal absaara wal afida waaw laallakum tashkuruun waaw mu defal leen bët mu defal leen nopp ngir ngeen dégg ngir ngeen gis xëy na di ngeen war a mën a sant xéewal la leen yàlla defal ba tax na yàlla ne wa yunazzilul xaysa moo fi nekk di wàccee ndox bay nandal lépp loo xamante ne xam nañ ko walla xamuñu ko waaye ndegem yàlla moone ne man yàlla may wàccee ndox buy nandal la soob ngir mu mandi ci ndox bi may wàccee kon kenn xamut ndox boobu yan façon ndox la ak yooyu di naan ak nu ñuy naanee ak nu ñuy màndee ci ndox ba yàlla di wàccee xam-xam boobu yàllaa ko yore subhaanahu wa bi léegi mbokk yi buur yàlla toftal na boppam xam-xam woo xamante ne doomu aadama yi lottu nañ ka xam loolu yëpp ngir màggal xam-xam mu ne ñu wa mu xam na maa fil arham la nekk ci bututu njurukaay la bututu njurukaay di ëmb mu doon doomu aadama la moo xam mu doon xeetu njanaaw yu jigéen lañu moo xam moo xam xeetu bayima yey jur doom lañu moo xam lépp loo xamante ne yàlla na ko mu doon xeetu jigéen mu doon ci yàlla mooñaale bututu njurukaay bututu njurukaay woowu wallax njaan yay babbeeku ci ndox bay génn ci lépp lu mu bind te mu doon xeetu góor ndox bay génn ci góor yooyu ñuy dugg ci bututu njurukaayu jigéen wallax njaan yooyu yàlla xam ana wan wallax njaan ñooy doon nit ana yan wallax njaan ñooy gennisee àddina bu dee bàyyi ma la bu dee njanaaw la yalla rekk a xam njanaaw woobu walla bayi ma woobu buy meññ la dugg ci bututu njurukaayam la muy doon day gudd fan walla du gudd fan waaye bu dee doomu aadama la tamit yàlla rekk xam bututu njurukaay ba walax njaan yooyu babbeeku ci ku góor ki nar a dugg ci bututu njurukaayu ku jigéen ki yàllaa fi nekk di xam ana lan mooy doon lay sax ci bututu njurukaayu ku jigéen ki ak lay wàcc ak lafadu dugg ñafa dugg nu ñuy mel dañuy gane ci àddina wala duñu gane ci àddina xam-xam boobu yàllaa ka xam góor lay doon jigéen lay doon yàllaa ka xam doonte am na ñu mu may as ci xam-xamam ngir dund doomu aadama mën a tegu ci njekk ba tax na léeg-léeg nga gis gynécologue yi ñuy tegtal màndargaay ka nekk ci biiru ci ëmb góor la walla jigéen la waaw waaye mënuñoo joxe màndargaay kuy gudd fan la walla kuy gàtt fan la kuy baru wërsëg la walla ku du am wërsëg la kuy am xam-xam la wala ku dul am xam-xam lay doon xam-xam boobu de yàlla joxu ko kenn moo ko xam subhaanahu wa taala kooku bu gënesee àddina ni muy mel day doon kay noppal nit ñi wala day doon kay lor nit ñi xam-xam boobu ki ko ëmb xamu ko gynécologue ba kay xool xamu ko yow góor ba doon sabab bi xamoo ko kon yàlla mi ko fa denc yàlla mi ko fa bàyyi yàlla mi ko fay développé yàlla mu moone wa yaalamu yàlla xam ne maa fil arxaam la bututu njurukaay di ëmb ak la muy imbi kon ba léegi bokk na ci xam-xamu yàlla yi li ne loolu kumpa boobu maako yore wa ma tadri nafsun maaza taksibu gadan ëllëg bu jege bii ëllëg bay ñëw gannaaw bés bii la fay xew benn bakken xamul loo fay faggu ci lu baax walla ci lu ñaaw xam-xam boobu yàllaa ko am yàllaa ko yore way ëllëg bés pénc la doomu aadama bi di fàggu kenn xamu ko ku dut buur yàlla tabaraka wa mu daldi di ñu tegal mu ne ñu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamud yàlla nee na amul kenn amul wenn ba kenn ba xam ci ban trottoir lay génnee àddina ndax yéenaa ngi fi di tukki di dem ak a ñëw ngi fi di dem ak ñëw di dikkalante di demalante kon kenn xamul fa la dee di fekk kenn xamul ban béréb la sa bakken di des yàlla mi ko xam moo ne kon xam-xam boobu xañ naa leen ko yéen doomu aadama yi xamuleen ko mu daldi di teg ne la muy feddali gis nga si njëlbeenu aaya bi mbokk yi buur yàlla daf ne inna allaha njeexantalu aaya bi mu ne inna allaha alimun ubbi aaya bi ci naka yàlla indahu fa moom la nekk ilmu xam-xam saa bés pénc xam-xamu waxtu bay digmal gannaaw waxtu wi xam-xam boobu yàllaa ka mu daldi ñu àndil ci diggante bi lam ñu wax ba mu àgg ci njeexantalu aaya bi mu ne ñu inna allaha naka yàlla alimun ki xam la ki peeg la xabiir ki supervisé la tamit ki xam la la ngeen nekkee waaye ki xam la lam leen wax ni yéen doomu aadama yi ki xam la la ngeen war a nekkee bu ngeen ko nekkee na ngeen koy nekkee ak ñan ngeen koy nekkal yàlla ki ko xam la lii nag doomu aadama am na lim ci umpale waaw xamul lay nekk bu nekkee na muy nekkee buy nekk ñam fay fekk walla ña ñam fay fekk ñooñu nu ñuy nekkee kenn xamu ko xam-xam boobu yàlla buur bi tabaraka wa mooy ki ko xam waaye xabiir ki supervisé la ci nekkinu doomu aadama yi kon mbokk yi lii lenn la ci valeuru xam-xam ba buur yàlla taafantal boppam subhaanahu wa taala mu ne doomu aadama yi sama xam-xam peek na la ngeen foog ak la ngeen foogul wala la ngeen xalaat ak la ngeen xalaatut ba tax na xam-xam da di dayoo da di mbir bu am dayoo fayal kon ñu ngi ci jamonoy njàng ak jàngale yow mi yàlla yenkeewal xam-xam boo xamante ne nit ñi dañoo am yaakaar bañ la jox seeni doom ngir nga def ci ñoom xam-xam bi mel nii xam-xamu alquran wala xatta xam-xamu àddina nanga nga nanga fas sa ndigg nanga takk sa ndigg xar sa tànk tubéy nga géem góor góorgóorlu ci sa kémtalaay kàttan boole ko ko ragali yàlla xam-xam da di jumtuwaay boo xamante ne moom lañuy joxe ci daara yi xam-xam da di jumtuwaay boo xamante ne moom lañuy joxe ci école yi waaye istinbaat ren fondement ba ka téye mooy aslul ilm aslul ilmul xaaliya nee na reenu xam-xam dafa foor reenu xam-xam dafa foor te dafa cher qaala imaam ahmad bun hamal rahimahullah imaam bun hamal rahimahullah yal ko yàlla yërëm moom daf ñu ne aslul ilm nee na reenu xam-xam ci boppam xachiyatullah nee na mooy ragal yàlla allahu akbar imam ahmad bun hambal rahimahullah nee na aslul ilm reenu xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy lan xachiyatullah ragali yàlla bàyyi xel yàlla wottu yàlla suuraale yàlla ci sa nekkin ci lu nëbbu ak ci lu feeñ nanga nga bàyyi xel yàlla ci sa nekkin yow mi joxe xam-xam na bàyyi xel yàlla yow mi ne yaa fi nekk di joxe xam-xam na bàyyi xel yàlla ci lépp ragal yàlla na doon la ngay wéttale ko fi nga nekk ca nit ñi xam la fa walla fi nga wéete foo xamante ne nit ñi xamuñu la fa na nga takkook ragal yàlla nanga nga takkook di bàyyi xel yàlla ahmad imam ahmad bun hanbal rahimahullah nee na loolu mooy reenu xam-xam mooy fondement wu xam-xam qaala imaam mujahid rahimahullah imaam mujahid rahimahullah moom daf ne al ilmu xasiyatullah nee na xam-xam ci boppam mooy ragal yàlla allahu akbar ñi ñëpp ay kamfóori la ñoo xamante ne kenn rawu leen woon seeni jamono rahimahumullahu rahmatan waasia yan na leen yàlla yërëm yërmande bu yaatu yan na leen yàlla yërëm ci yërmande ba yaatu ba nekk fa yàlla imaam mujahid moom daf ne xam-xam ci boppam mooy ragal yàlla waaw ah, mu daldi si teg ne alfaqihu man yaxaafu llaha wa in qalla ilmuhu wal jaahil man asa llaha wa in kasara ilmuhu bidaaya wa nihaaya qaala imaam ahmad bun hambal raasal ilm xasiyatullah mbokk yi imaam mujahid rahimahullah moom daf ne ki yàlla baaxe xam-xam muy ki xarañ mooy ka ragali yàlla doonte xam-xam da ba ko yàlla jox dafa tuuti waaye nee na ki xamul dara jaahil ba xamul dara mooy ka nga xamante ne daa dëkkee di mooy yàlla ci teyeef donte ku bari xam-xam wax bi mu ci téere bi ñu naan al bidaaya waaye imaam ahmad rahimahullah bi léegi moom mu ngi nii duñu géem a dëgëral duñu gën a feddali raasul ilm nee na bu dee xam-xam am na bopp bu dee xam-xam jëmm la bu am bopp nee na mooy xasiyatullah wattu yàlla bàyyi xel yàlla sóoraale yàlla kon nga gis ne bu dee dañoo jàpp ne ki muus ku xereñ ki yàlla jox sagesse mooy ki ragal yàlla donte li mu am ci xam-xam bariwul waaye ki xamul dara be dara booloo jeex mooy ki dëkkee di mooy yàlla ci tayeef donte nit yaa ngi soow di ŋawuti ŋawuti ne ñu di ko naan yi yaay boroom xam-xam la fekk mu ngi takkoo di mooy yàlla fekk mooy yàlla mooy principe am ba muy doxee ragalul yàlla ci la muy wax ragalul yàlla ci la muy jëf ragalul yàlla ci melokaanam bàyyiwul xel yàlla ci lamu mu nekkee ñu ne kooku na dajale mboolem téere ya nga xam waaye kooku mooy jaahil bi nga xamante ne xamul dara tojul fenn du lenn bi dara booloo donte xam-xam bakku nit ñi di coow dafa tollu ne montagne na xam lu ko neex na xam lépp nañ ko jiiñ boroom xam-xam waaye fekk mu ngi mooy yàlla ci teyef ñu ne ko jaahil la ku xamul dara ba tax na ñu bàyyi xel dayo xam-xam ñu bàyyi xel dayo njàng rawatina xam-xamu diine ñu bàyyi xel laaye biir yañu jëmm yu baax ñi laaye biir mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñay tas xibaar yaa ngi ni taxaw ñu war leen jébbal béréb bi lu jub ci kàddu gi ñu santee ko yàlla la ci dëng nag ñu di ko tuub di ko jéggalu yalla na ñu yàlla boole jéggal ñu di leen sant ci may nopp bi ngeen ñu may ci waxtu wi ñu ñaan yàlla suñu borom an meneen yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana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 baaraka allahu lii walakum fi lqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allaha lii walakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu